combat am dañu doon ci euh, am distance. Mm. des fois mu toog deux ans trois ans. Mm. am na lu mu bëgg wone wane comme li Bombardier am balaa balaa bàyyi. balaa bàyyi Ama Baldé Gris Bordeaux Ama le défi de rebondir mun na rebondir ci kaw euh, Gris. dina métti ci kan dina métti ñoom ñaar ñëpp. Ah. te xam naa du yo euh, Gris du ci bàyyee noonu xam naa loolu. Mm. Ah. parce que Gris mii ma gis nii yi moom mi ngi rey boppam honnêtement. ah mu ngi rey boppam mu ah. du yomb de. ak tey du mbër bu ragal. waaw loolu ah. neex. yaa ngi koy rek. waaw non xam naa xam na parce que xam naa ko xam naa ko. Hmm. xam naa na peut être ñàkk jàppale mooy am ci moom jàppale bu wóor bi mu daan am face xëy na mooy mooy kii rek mais du mbër bu ragal te tëlewul bëri tamit. da ngay naan dafa tële bëri mais tëlewul bëri de. Ama hmm. Baldé bu yaakaar ne dafay ñëw rek saa saa ko sànni fële day juum. Hmm. waaw day juum taay nu Gris Mel. taay gëj naa ko gis nag de xam naa daal mi ngi Eh, Ama Balde mën na ko yëngal gësam. normalement xale la moo gën nekk xale. Hmm. Ama Balde kay moo gën nekk xale. Hmm. Hmm. mu jàngi lu bari tamit moom tamit. kan Ama mu lu bari bari bari bari. lu war a jàng. Ama Balde war na jàngi bëri war na jàngi xeex. war na jàngi bëri war na jàngi xeex. bu ko wax ne ko yaa fi daq bëri wala yaa fi dàq xeex nga wax lu ko neex rek. parce que gis naa ay ay défauts yu bari ci bi ak kii. Modou waay benn défaut bi nga njëkk gis mooy ban. Ah. ban defoo nga gis. du ma njëkk gis seen communication baaxul. waaw. respecté wu ko benn yoon. Mm-hmm. honnêtement dañu fekk dëgg man bokkuma Pikine nag. waaw li ma gis ci ci image yi. non allez-y waaw respecté ko. Mm-hmm. amul garde. Mm-hmm. te mënul xeex. amul garde mënul xeex mënul xeex. parce que mbër boo xam buy dóor day njoos kooku moom. du mbëru mm. xeexkat quoi dëgg dëgg. mënul xeex mënul xeex de dañ ko jàngali xeex. Mm. ngay bëri giri muy bëri giri bordeaux mbër bu amul gaar di bëri giri bordeaux. Ah, loolu loolu wóorul. wóorul. fu ah. mu jàngi xeex jàngi ah. bëri. waaw mm. jàngi xeex jàngi bëri kooku waxul loolu day wax lu ko neex. mbër yi bu ñu leen leen raay parce que ñoom ñooy soxla nit ñi. bu nit ñi soxla wuñ leen. Mm-hmm. il faut ñu leen di wax dëgg. dëgg la bu leen soxla ay seen 1000 francs seen 2000 francs bu gars yi bu ñu soxla seen loolu. Mm-hmm. mënuñu la jox mm-hmm. ko wala boo boo àndoon ak ñoom sax boo boo boo waree génne bu ñu waree génne sax yaay génne kon ñooñu man man ma ci ñoom dara quoi. honnêtement hmm. man Gris Bordeaux nag lan la war a yokk. yokk dooleem. waaw. yokk physique am. yokk physique am waaw. wàññi tuuti yaramam. Hmm, waaw surtout loolu. wàññi yaramam poids bi quoi poids bi. poids bi waaw. Hmm. da koy handicapé ci lu bëri quoi. wàññi poids parce que fi ñuy bëree suuf la. dafay dis ci moom. il mu wàññi euh, yaramam tuuti. Mhm. loxo yi mën na mën na nekk mën na nekk. Mhm. mën na nekk lekk bi lay wàññi rek xool xool gerte tigam. lekk alimentation xool alimentation waaw loolu rek la. loolu rek su ko defee mën na ko daan. mën na ko daan ah. mooy favori Gris. ah man pour man mooy favori. ah sa favori. pour man di nga ñëw jàpp si combat bi comme ni si doon jàppee. wax dëgg yàlla damay wax dëgg rek. du tax dara. bul même bu la seesee. ah mais <coughs> xam du seet si. Ah. parce que man xam man mbëri yàlla dafa def man aw ma seen numéro téléphone. Moustapha Gueye ànd nag moom vingt et quelques années xaw ma sax numéro am. Hmm. buntu sax xaw ma fa du ma fa dem ko seet du ma seet. ñu hmm. ngi rek. noo ko joxee bagage am kan Moustapha. ñun boobu ñaar ñi ngi ànd ñi ngi nekk. waxtaan mais Moustapha Gueye ay at a ngi ni gisuma ko xaw ma si kii lu mu nekk. du ma ko gis. mukk ñoom ñëpp nag sans exception. ay traître lañu. non loolu lu ma ci wax mais daal xam naa ne daal. <laughs> jërëjëf <laughs> dugal nag. <laughs> ah Mbaye Diallo. Ama Baldé le défi de rebondir. sa doom boobu war a bëre Gris. waaw ah, am ah. hmm. mu diiree mu may ko Gris. Hmm. man nee naa xam nga wax naa sama biir wax may la. suñ ma dégg bu fekkoon ne dama am ci ñoom ndogal. Mm-hmm. jour bi muy bëree ak foofu la waroon a bëree Gris combat bi warul woon génn foofu. Mm-hmm. mais waruñu woon may giri temps bii yëpp. Mm-hmm. te Gris ñu bari ñu ngi naan Gris du mag parce que Gris boo xoolee ci génération ñoom Eumeu Sène la Eumeu Sène booy dañ ko ëpp doole. mais. seen génération la. te Eumeu Sène euh, seen génération moom ah, seen génération la seen génération la. xam nga ñoom benn génération la ñu bari nag loolu la ñu calculé wul. waaw waaw non ay ay kii c'est que dafa am benn groupe boo xam ne dafa teel alliance boobu moo teel daw. Mm-hmm. mais boo xoolee ay Pathé Baldé ay Abdou Diouf ay ay ay ay ay euh, Eumeu Sène. Mm-hmm. Giri Mbaye Diouf. ñoo bokk ñoom ñoom giri sax rakk la ay Moussa Dioum yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu la woon ñu bokk benn tafoo doon benn génération da mbapat boo xam ne mm. ñii ñu ngi gërëm te arène ak yooyu dafa nag bon toujours mën na feeñ ci combat parce que day entraîné parce que de ah, façon année que man li ma ama combat bi léegi moom lu ma wax si ama yow mi ama bal Hmm. neen na dafa war a jàng bëre lu bëre. waaw dafa hmm. war a jàng xeex yow mi yoroon Ama nekk entraîneur. ak garde looy wax ci loolu ak garde bi. bon xam nga man Ama ci distance bi ma ko yor dafa gàtt. Hmm. parce que boo xoolee ñu ngi tàggoo ci combat mag nees. nee naa la ci combat mag nees. bi may bañ kombaa bi li mu wax nii da cay am. ma bañ kombaa bi. loolu man ma ma ma am na ku ma ku ma sax man leen yéen pourquoi ngeen di jël nees. da ngeen ko def mbëru occasion tamit mais du occasion. Hmm. boor laa tase ak moom ba du ma ko fàtte moom xamatuma sax kan la man la yéen benn gars bu ñu jot la fàttali ma. Hmm. la fàttali ma ne ma ñu ngi ñu kii. est-ce que le Jean. non Jean. Ah, ko yéen a jël mais du du du. occasion. Hmm. ma du occasion nag ngeen ko def mais du occasion. man boobu dama bañ combat mais xaalis bi dugal na leen ci. ñaata ah? lañ ko fayoon sëñ Mor ñaam fayoon. non dégg naa cachet bi fi mu tolloon la ko parce que boobu xaw ma mi nga waroon deux millions kii ñëw fay huit différence de six millions ñoom lool mais boobu xam nga la la sport. Mm-hmm. ñaara koy surveiller. Mm-hmm. dañ lay defaral palmarès. Mm-hmm. boo defee palmarès ba pare ñu doog la utal xaalis. noonu la ñuy yoree mbër. sport da koy xam. mais ñu bari. xaalis a yooyu la ñuy indi. xam nga tey boo bëggee jàppale mbër. am na ci combat yoo xam ne man léeg-léeg dégg ñuy dox benn combat combat bi yàqu dama wax ne kii du ndaanaan. Mm-hmm. parce que am na combat yoo xam ne boo yoree un vrai vrai vrai staff. Mm-hmm. ci lañ lay liggéeyal parce que dañ la combat bi suñ la ci fayee vingt millions. Mm-hmm. ci préparation bi koy takk ci deux million quinze millions yi ci ngay am kër. am combat yoo xam ne dañ naan la doo ko jël ci vingt millions da nga koy jël ci cinquante millions parce que préparation ba mu laaj la. man bi may njëkk xuloo combat Siteu ak Ama Balde boobu buñ ci d'accordoon ak man mhm. dama ne foofu la woon mhm. xaalis xaalis bi da ngeen koy jël mhm. préparé ko takk ko ci nàngam mais am na ci côté yu am na ci combat yoo xam ne boo ci ci soog mbër mi du gaaw a am dara te carrière mbër dafa gàtt xam nga day wax mbër mi naan la bëri naa vingt ans nga calculer ci biir vingt yi amul vingt combat ban sens la mais ki bëre ki bëre ci vingt ans am ci kër am ci oto préparer retraite mm-hmm. nga pare dugg ci say business mais tey doo am problème mm-hmm. mais sport loolu lay jariñ suñu wax ak nees boobu noonu mm-hmm. waaw ak Ama yaa toogoon ci baan wala Jean la Jean moo toogoon ci baan mais combat lu tax ngeen forcé loo Ama te muy bëri poids lourd Ama kenn forcé loowu ko parce que lañ doon bañ ca combat moo ñëw ca combat ba dama ne la. xeexu ñamu mbaam lañ ko indil tax boobu xam naa ne xamu ko. Mhm. tànk yi jaxasoo na. Mhm. sooy wax ak moom sax du la dégg. Mhm. mais instant boobu Jean mënu ko dimbale parce que ci làmb dañ koy teg ci temps. dañ koy teg ci heure. moo tax ma ne la un entraîneur day xam su athlète am waree dem ak bu demee mu wan ko nan nga war a réagir loo boo fa fekkee nangam nii ngay doxee boo fekkee lu bon nii ngay defee boo fekkee lu baax nii ngay réagir. nga xam ne di ko mën a téye boo ko delloosee nga conseillé ko xanaa xamoo ne léeg-léeg préparateur préparateur mystique dana gagné combat. Mhm. entraîneur gagné combat. Mhm. mbër gagné combat. Mhm. mais yooyu yëpp ñu bari mënuñu koo ràññee. dëgg la préparateur mystique na perte loo mbër tamit. waa ni koy gagné noonu lañ koy perte. booy ñaan jos préparateur mystique ñoo ko perte Serigne moo ko perte loo. moo ko perte loo. ko kan. non xam nga. léegi loolu loolu ñëw question bi ma ne posé. Mm-hmm. nga ne Pikine mm-hmm. dañ leen tàggat affaire de sportif. maanaam défaite bu ñëwee ñu xam ko. victoire bu xam ñëwee ñu xam ne sport la. Ah. Euh, ma sant sentir am na ñaari yoon ñu ñu dàq entraîneur si defet yow ak Jean. Mm-hmm. si si nees bi. Jean si Modou Lo Eumeu Sène premier combat bi Jean moo yoroon. xam nga soo xoolee ah, soo xoolee man champ moo doon moo naa bi man adjoint laa. Ah. mais man dama bañoon combat bi. xëy na yàlla moo bind te yamalewu mhm. man man du defet bi sax a tax ñu dàq ma. Mhm. parce que gis nga man bañkat laa. Mhm. boobu y avait un gars boo xam ne dafa ñëwee ci ngand xel. dem récupérer ay t-shirt ak yooyu ma ne ko comment faire ñu jël ay t bind ci écriture yi. te amul benn enveloppe bu ñu mën a soutenir sañu jëm ci combat. ok delloo t yi la maire. dem nañ xam nga man boo gisee autorité Pikine yi. mënu ma leen naw parce que dama ne gëmuñu Pikine. parce que récupération politique la ñuy def. Mm. Mhm. man loolu moo leen xaw a metti ñu dem ñu jéem a kii ci loolu la indee ñu indi ko ci affaire boobu bi mu daanoo ñu kii man man mais man defet dama koy gérer. Mm. damay gérer victoire. man xuloo naa ñaari yoon ci xuloo naa ci victoire xuloo ci defet mbër daan na ma xuloo kook moom mhm. mu daanu ñu xuloo gis boo xoolee mëppool bi muy bëri góor a soog bi ko góor a soog daan dama ko dóor biton ndox bi ma yoroon mhm. keroog Abdou Badji sax keroog euh, xam nga comme directeur technique la bi ñoom bi gars yi talee suma kaw ñoom xalifa daf na leen est-ce que xam ngeen li tax mu def lii mhm. bi ñu dajee bi ñuy bi ñuy dajee euh, CNG stade amitié. Mm. mu ne may keroog li nga defee nan la nit daanoo nga kii ma ne ko dicté préparé la. Mm-hmm. parce que dañoo toog ñu def kii ma ne ko waaj da lay caxabal ñu préparé ko un mois. Mm. ci caxabal bi. Mm-hmm. boo ko tooñee bu kii ak yooyu ma ne ko da lay da lay jëkk dóor coup boo taxawee fixe mu roof caxab bu jàppee day roof caxabal bi. Mm-hmm. bu roofee caxabal bi nga mbiite ko ñu wàcc ñu travaillé ci ba kenn mënu koo daan. Mm. ma ne ko nag sa tànk warul jug pour lonke ca xabal bi da nga koy da ngay ca xabal bi. waa ji def ko ca xabal muy mu yëkkati tànk bi daanu ko lan lay nuru. moo ko pardonné. cuune daju dafay cuune. du ma ko du bi mi ngi ñëw ci combat euh, Cheikh Ngiraan numéro 2 benn rakk Auguste. waaw parce que dafa bëre ba soog arbitre beeg amateur yi doo ko daan waaj. te action bi préparer nañ ko lu yàgg ñu ne ma kii mi ngi daan may leen ba mu waree daan waaj dafa yàgg mm. parce mm. que da dem yow ba nga xam mm. ne jeex nga nga doog a dellu si kon sa xel newul woon ak yow moo tax gis nga doole dafa am sens ci ci compétition mais doole moo jëkk Aline Diouf dañoo daje fekk maa ngi ànd ak sama benn mu ne monsieur Aline Diouf moo mën Tapha Gueye fekk def cent ñuy dox combat am ak taf fekk dañ dox combat am ak Balla Gaye mhm. mu ne kii vitesse am Balla Gaye du ko attan. Mhm. Balla Gaye un mhm. maa ngi dajeeg moom muy def cent mètres tour benn blouson benn jokkine France. ma ñëw boobu Fass su ma juumul ñu ngi entraîné Émile Badiane. ma ñëw ba booru école maa ngi yee euh, fekk may jaay samay njegenaay. dégg naa yaa jaay njëgg naa. non mënoon jaay daaw xam nga sama. non combat Moussa Gueye Aliou Diouf boobu kay man maa supervisé Aliou Diouf te léegi ma gis ah. Tafa Gueye. su li may wax ah. su fekkee ne moom mi ngi koy bàyyi xel ma fekk ñu ngi ko solal benn commu euh, benn combinaison de lutte gréco-romaine. waaw ah. bu orange xaw ma bu rouge. rouge Tafa Gueye sado ba pare ñu départ ma teg ci Tafa Gueye ñu ne mais yow démb da nga teg man leen non doole ji ma gis bu Aliou Diouf jëlee coup. ba perte combat bi booba euh, Diagne ménager day sëy suma grande sœur mm-hmm. ménager pour ma wax na ne la booy bi yoroon jum tubaabu joor mm-hmm. ñu départ ci ne ma yow mbay mënuma la comprendre yow Alioune Diouf mi nga xam ne boobu qualité bi Alioune Diouf yoon mm-hmm. ak kase gi ñu seetaan man comme gis naa Tafa Gueye rek man parce que man noonu laa mel damay wax ne diw bu ëppee doole moo ëpp sens te gis naa Tafa Gueye dafa ànd ak sagoom xeex bi jaar na yoon. Hmm. ma xol kii di teg pied gauche kii di teg pied droit ma ne kii crochet long mën na ko dal wala ñu ba bàcc ko laaw. Hmm. ñu départ dem ci làmb ma ne man làmb ji ñu dem gaañ bi kii ak yooyu ñu départ ma leen man ci Tapha Gueye laay teg léegi am sama benn waay bu ñuy wax James mu ne ma comme léegi yow ci Tapha Gueye nga misé wu te man yow ci yow lay misé wu toujours mu teg benn waay euh, teg caabi otoom. da nga mën yëgu ma ne waa ji eh, dafa teg carte waa ji moom mu teg caabi oto waa ji xaw ma teg oto mais bi ñu doxee bi Tapha Gueye dóoree Alioune juuf keroog arbitre bi sax xaw na yàq làmb ci keroog Demba Diop tees mu toj presque trois actions yëpp bu ci nekk jël la bi ñu génnee nag ñu am werante ci oto yeeg yooyu ci la wax ci la ma ci la yéeg ci la ñëw ne ma man yow yaa tax ma gañe waa ji ndax ci Aliou Diouf laa tegoon mais dama dégg nga wax ne kuy teg tegal ci Tapha Gueye waa ji ku teg ci Aliou Diouf continuer man ma gént moo tax ma wax la ne am lecture yoo xam ne nit ki tëb boobu tax Aliou man maa ngi armé mhm. maa ngi mais moom xamuma ñoom ñoom ngeen waa Asfa ba xam ne ñoon ni man maa ngi ànd ak mhm. di ko di ko xool mhm. mu def rek ma bind lu mu def rek ma bind mooy yow jour xam ne mbéy gay naa naan dëgg la bi ma ko waxee ne ko mënuma kon kii buy songo si Moustapha Gueye day yéex effectivement noonu la mel dafay songo si Moustapha Gueye réceptionné ko. Mhm. mais ci une minute Moustapha Gueye daan ko ñetti jël. troisième jël la ko sànni ba tant que Aliou Diouf am mhm. ko fàtte mu bus. da ko busoon sànni ko sànni. Mhm. bon je crois premier janvier 92 la wala la moo tax ma ne la. non maam Ndiabane ma ne 92. yaa nekkoon espion waaw. lamb da am expérience lamb lépp. non lamb lépp ki bokk lamb da am boppam lépp lamb. su jeexee xam nga tay dama la wax benn affaire. Euh, mais ñun ñu daan ànd ak ñun te bokkuñ ci staff bi moo ëpp. xoolal ñu daan ñu nekk staff bi. Demba jeexee ñi nga xam ne génération bi ma la limal bi lamb jeexee ñoom ñëpp fuñ daje dañuy kaf dañuy ree. Mm. est-ce que xam nga ne foofu nga may fekk yow yaa ngi fay fekk Sidi Tabaat ah si si grand place Sidi Sabaat xam mi ngi fay ñëw. xam nga jàmm jooju. Ibrahima Mbaye xoolal boo ñu fekkee ci làmb gi ba gis na li ñu mel. xam nga tey. parce que loolu mais xool xool Tafanaar su ma ko gisee lu mel laa koy def. xam nga xoolal Tafanaar soo ko baaboy. même baaboy baaboy fi may nekk parce que. mais parce que fa kii ñooñu ay sportif la ñu mais suñu gisee nii lu nekk euh, la dañuy bëri sax nag na ko yàlla yërëm. ah euh, bu ñu mësaan a génn drapeau chef leer na dénk leen ma mbay jàll ma ne ko yow yow de yow yaa bëgg ma lay surveiller mais yow mënoo maa surveiller bañ ma lay dénk parce que maa koy doxal course parce que loolu mooy te mbay gay dañ daan wax naan dafa osé dafa na dama lay wax ne xam nga moo tax ma lim la ne la mbay gay hmm. Robert Alioune Seye hmm. ñooñu dañoo mënoon préparer tactique ñu mën a liir làmb mais am na tey entraîneur yoo xam ne bu làmb ji nee critique bañ tàggal du ñu xam ne dañ lay sotti ndox wala ñu may la nga naan moo tax may la préparateur mystique dina ñëw xam ne mbër mi entraîneur bi dof na mu ñëw génnee nga yaakaar na saafara mu jox la ñetti guux nga guux mu sotti la sa yaram non loolu da nga am stratégie ñëw wala nga ñëw tas ngembam tas ngembam mu récupéré mu récupéré tuuti takaat xam nga yooyu yëpp est xam nga ne mais entraîneur am na yoo xam ne ah passe ah. yooyu daf ah, tas ngemb li gis nga combat mu ko mu euh, am na benn boy bu ñuy wax euh, bu nekkoon yoof war a bërëg di bërëg tam combat bi metti mook euh, mook booy bi combat bi dafa metti léegi bi si toor ma xam ne làmb ji man maa ko mën a rek bi si toor rek booy bi ñëw ci man rek si toor yaakaar di jéem a kii rek ma foqati ma foqati protestant bi hmm. continuer wuti ci mukaay ñu naan për ñu naan ma wóyul ma continuer rek ndox di dem ba ci mukaay la ma dem gàddu bitéelu ndox ñëw mu ma yow foo ne ma ko non dama doon raxas dama dama doon raxas protestant. pour booy bi récupérer. mais mais loolu la. bi bi booy ko dootoo def de. non man dootuma ah, parce que actuellement nii moom vraiment. dama ne léegi làmb doon ci amateur laa déggoo ma ne la man yor naa licence ménage hmm. mais boo gisee samay combat mbër sax du gaaw parce que du ma dafa am yoo xam parce que tey maa yor Valdo maa yor Mamballa maa yor Mamballa junior bi mais seeni combat soo gisee muy yéex sax man du ma neexal. promoteur am na ñu nangu seen licence de ndax doo leen jox combat. non du question combat promoteur a koy joxe ménager mënu ko joxe gis nga làmb dafa bari ay ménager yoo xam ne. seen intérêt la ñuy doxee. da ngay liggéey ak promoteur promoteur bi soxla mbër mi nga bëgg woo mbër mi ne ko man su ma la yoroon nga am combat bi te yow ñu bokk association kon waru ñoo mën a dem. Hmm. gis nga làmb ay hypocrite ko wër. moo tax làmb du dem du neex. du defaru ji. non xoolal parce que sama xale bii ma yor nii. Euh, keroog cent mille francs lañ ko fay. ma bi ñuy jël ko avance sax man yëguma ko. ma ne ma ne mu ne ma non ça xam nga su su booy bi dafa indi dafa li mu indi dafa bari su bëree léegi rek day day kii quoi booy yi dañuy ñibbi ah xam nga mu ne ma ma ko mais yow non loolu du am parce que booy mu ne ma léegi xaaral naa la jox xaalis xoolal yooyu. Hmm. mais bi mu daa booy bi daanee mu woowaat ma pour nga xam ne pour. mais booloo mooy lu ne la ñuy def ko seen biir ñoom tamit kenn hmm. rawu leen. Hmm. kii fay na ma lii. kii kii fay ma ne kii ñëwaat fayat ma lu ëpp lool kii ngeen ah, ko ah. kenn xamatul mën lu ay kenn xamatul ku mën bëre ku mënul bëri kuy mobiliser la nga xam ne ah. te loolu promoteur yi euh, euh, ñoom tamit waa euh, sunu lamb dañu defaat benn papier ñu ne le premier mai franc vers un test grandeur nature contre Bombardier parce que Franc tey ba léegi mu ngi ci VIP yi mu ngi ci porte bi mais gars yi abse accepté guñu ko parce que boo seetloo tey benn VIP yi parewul tey pour moo ko sens muy Lac de Guiers 2 moo ko rëg bi gis na ko jur na polémique jur na cow tey waa jàmbaar yi ko yor tey peut-être noonu lañu mën a def tey pour Franc mën a bëre parce que aussi dafa am mbër yoo xamante ni tey ay mbër yu alléchant lañu ay mbër yoo xamante tey mm. mbër yu captivant amateurs yi leen bëgg promoteurs yi dañ leen xëccoo parce que dañuy am caaj dañuy am feeling mm. dañuy mën a fecc mën a wax bu ñu communiquer sa nga gis gars yi mu nekk challenge ñi di ko tiktok yu demee noonu tey mais tey mbër bu mel ni Franc tey jàmbaar bu ñu ko yoree tey peut-être am erreur de communication bu ñu defoon taxaw ne Lac de Guiers day wu ñu mu jur ay frustration tey dinañ jaayante tey ba Franc mën a am combat. Mhm. Franc nag combat boobu aussi examen la ci moom. pour mu mën a passé dugg ci VIP yi. Mhm. waaye aussi pour moom aussi mu mën ci liggéey.

franc kon bon waaw Boucar il a tout dit mhm. effectivement euh, gis nga franc pour wax dëgg moom rëg-rëg lay topp si tànk rëg-rëg si topp mhm. am na mbër bu bëri ak rëg-rëg defe naa rëg-rëg daan ko mhm. franc jël ko daan ko franc noonu lay def rëg-rëg dafa jóge si bombardier fexee na bi am bombardier parce que topp daf ko dafa xam ni xëy na am na li ko rëg-rëg woon si mbapat mm-hmm. mu bugg ko faj si mm-hmm. arène bi mm-hmm. parce que jàpp nañ ni arène ak ak mbapat du benn du benn de waaw mais combat bi effectivement combat test la gis nga ni ko rëg mu yomb ba ñu yaakaar ni sa combine la bu ko defulee dañuy xam ni day am lu muy wàññu ci moom surtout bu amee défaite donc combat test la pour loolu pour pour gën a jege rëg-rëg combat test la parce que eggagul VIP Mm-hmm. caché am eggagul cinquante millions te ñuy bëri VIP yëpp seen cachet egg nañ foofu. Mm-hmm. ba pare mobiliser. Mm-hmm. boo xoolee jàmbaar moo la tëgg. moo la mujjee tëgg di la tëggaat. yeneen promoteurs yi sawaruñu laa tëgg. parce que fi ngay toll si sa cachet ak mooy ak mobilisation yi ngay indi dafa des. moo tax li Boucar wax ànd naa ci ak moom test la ci victoire test la ci mobilisation. ah Thierno Diop test la pour franc. test la pour franc mais man boo marqué dama ko mere tamit ah, ko Euh, euh, combat bii passé nii moo ko rëg-rëg. loo ko si meree. dafa combine man sama loolu li ma wax man. man eh, ah, ah loolu rek benn doomu aadama ñu musu ko man maa ko wax man. Bombardier daa combine. dafa combine bi. foofu si loo ko teg. ki la bomba ah xam ko parce que xam ko moo tax. Bombardier dóorul xàcc waa ji mu ba mu wàcc loxoom pour waa ji mën ko senn bënn ko. waaw. jéemul def dara. Hmm. yow ba ba ngay daan sa yaay xool fi ngay jaaxal. man ko man ko man ni Bombardier bëri na.

est-ce que nekkul fin de carrière di wut mm-hmm. moom test la pour moom. test la bu wér lu leer parce que comme Bombardier daanu bii mu daanu nii il faut que Franc tam góorgóorlu bu baax parce que du du du ko defaat. Mm-hmm. parce que am ko naqari. Mm-hmm. ko du ko defaat. du ko defaat waaw man man euh, pour man daal combine la def quoi. combine la def <laughs> Franc test grandeur nature. pour góorgóorlu quoi test bu mag la si moom. waaw. Euh, test la mais test la de combat la boo xam ne daal du combat taxu du combat boo xam ne am na yenn ampleur yi parce que bomb bombardier franc bombardier presque fin de carrière la. mi ngi fin de bi muy bëri ci fin de carrière. fin de carrière problème bi mooy ñoom li ñu waroon def. Mhm. waa jàmbaar lañ deful. mooy lan. mooy rëg-rëg Modou Lo dafa waroon taxaw ci kaw franc nangu. Hmm. kay na ko franc ngi nii boo ko daanee bëre Modou Lo portel ko garanti mu ñëw bëre ak franc mais lii ñuy def nii dañuy wër-wër loo rek. dañuy wër-wër parce que bu jógee ci combat yee après lu muy jëlaat du gaaw a jotaat franc léegi franc day ñëwaat jël ci ñi est ce que ñii tamit dina mën a jot ci ñoom ñëpp. dëgg la. kon wër-wër loo boobu kii ñoom ñoo ko waroon dimbale garanti ko. kon Modou Lo Siteu ak moo ak Modou Lo Reug Reug ban moo gënoon ñor. Modou Lo Siteu Modou Lo Reug Reug parce que dañ naan Reug Reug boo daanee Franc bëre Modou Lo loolu lañ koy tegal garanti bu ñu bëggee ñoom ñaar seen combat xaw kon demi final Franc Siteu la woon Reug Reug Modou Lo. mi ngi noonu waaw. ba tey ba tey ba tey ba la mais li ñuy def nii. Mhm. léegi Siteu euh, Reug Reug bu jógee ci Ama ak Boy Niang. waaw après moom day ñëwaat ci Ama ak Boy Niang ñuy toppante ba kañ. Hmm. kon combat boobu mun na bañ a am de. mën na bañ a am kay. Reug Reug Franc mun na bañ a am parce que yoon bi day yàgg wala. yoon bi dafay yàgg yoon bi yàgg la doon xam nga kon combat lay fàttaliwu. Ah. Thierno xam na combat seen am na seen Baboy Rock Mbalax Rock Mbalax. ah Baboy Mbalax. ah Pape ba léegi fu ma dajee ak Rock Mbalax naan ko sa sa man sa combat ak Baboy rek laa la laa ba pare. la lay fàttali. Baboy la lay fàttali. lan la ko Baboy def waaw kay lu ne def na ma ko saaga la ma sotti def na ma ko. ndeysaan. lamb lamb neexatul lamb neexatul. donc Bocar bu ñu jógee foofu tuuti ci wàllu bor dañu jël Gris Bordeaux dafa xam naa dafa benn émission Gris Bordeaux met la pression Ama Baldé ne peut pas m'effrayer nee na daal Ama Baldé moom. mënu ko effrayer benn yoon si combat bu ko waxee aussi c'est légitime. parce que Gris. Mm-hmm. il a disputé de très grands combats. il a affronté mun nañu ne tey les ténors Mm-hmm. tey ñi ñi fi gën a mag tey boo seetoo tey giri bëri na ak ñoom te li sa waay wax rek giri di ragal du ragal te aussi am na mental de fer am na esprit tranquille boo xamante ne ni mm-hmm. Zarko tey mbër mën nga mm-hmm. sa adversaire dina ne yaa quelque chose tey sa adversaire mën na dem si ay sëriñ ñu garantir ko mën leen a takke sax ba xam ne yow takk nañ na sax mais comme li sa waay wax rek mbër sonn ngeen wut stratégie ba ngeen def tey ba mu mën a récupérer mbër nekk peut-être nekkul à 100 pour cent te ngeen def stratégie ne ko dawal defal 100 defal lii defal lii defal lii Zarko day ñëw si biir géew ruube Gris Bordeaux war na mun a ñëw tey moom ak Ama Balde tey ñëw taxaw dëggal boppam. Mhm. day sonal Ama Balde. parce que su fekkee ne Gris comme li sa wax rek dem na liggéey physique. Mhm. liggéey physique fexe wàññi yaram bi wàññi poids bi. waaw ah. ngir quoi compétir mën a xeex. te ma yokkal la sax li mu wax fii nee na les qui mhm. sont en moi ne sont pas sur Ama parce que tey xeex bu rangé tey bu wóor tey Gris moo ko gën a moo ko ëppale Ama Baldé. Ah, dëgg la xeex corps à bu jaaroon tey Gris moo ko gën a mën ko Ama Baldé. Ah. kon Gris bu ñëwee andi doole. waaw andi confort physique bu ñëwee mm. taxaw dëggal boppam bu ko nee bu bu ko nee Ama du ko a ko effrayer. Mhm. sa bu entraîné daal man bu entraîné dëgg. waaw def li mu war a def. man gëm naa ne Ama bi mënu ko téye. Hmm. démb la. man gri Bordeaux il ne fait plus peur Ama Baldé xam nga Gris Bordeaux boo xoolee xeex bi sax presque xeexatul. comme ni mu daan xeexee. Hmm. Gris Bordeaux depuis contre Eumeu Sène seen dernier combat. Gris Bordeaux amatul vivacité bu mu amoon si xeex. Gris Bordeaux gaawaay bu mu amoon bi muy bëreeg ñoom Lac de Guiers numéro un bi muy bëreeg ñoom dem si yàlla Tyson Junior. loolu nekkatul si Gris Bordeaux. Hmm. à son la là. Hmm. mënatul am mënatul nekk athlète. mën na nekk aussi que ne électrocution bi aussi moo ko porté préjudice. ça peut être aussi ça dépend. maasu courant bi <laughs> waaw bi waaw ah. peut-être ça. waaw ah. mën na nekk mais mais jàpp naa ni. Hmm. il est devenu un lutteur. non non sport business la toll fu mu toll. Gris Bordeaux avant dafa doon daan pour Fass. Hmm. pour honorer que moom troisième titre bu mu honorer hmm. dafa doon daan pour Mbaye Guèye ak Tafa Guèye. Hmm. succession bi. tigre bi naa naa respecté pour xale yi nekk sama ginnaaw mais depuis quelque temps Gris Bordeaux xaalis lay bëree. loo waral contre Balla Gaye mu ñëw indiwul dara mu dem bëree ji. te préparé wul a deful dara ci combat wul. dëgg la Gris il cherche de l' argent actuellement ku bëree. alors que Ama Baldé dafay dafay bëree sportivement talent sportif la am ci combat bi parce que lu lu lu lu koy xaar la si rëg-rëg hmm. te fu mu jógee si defet moo waral mu dem si INSEPS e il paye ñaata million à peu vingt millions pour mun a nekk athlète am hmm. état bu baax parce que amu ko woon si um, donc Ama Baldé il est le favori de ce combat là pourvu hmm. que mu gëm ko liggéey mu négliger tuuti mystique parce que contre Modou Lô lu mu gëmoon lépp si musique la ko tegoon. ak lu ci waxoon lépp. Mhm. mais xam naa Mbaye Diallo moom du d'accord ne Ama mooy favori wala. non man Ama mooy mooy favori. ci combat bi moo nekk gën a nekk xale. te moo war a gën a soxla bës bi. waaw giri da koo may sens rek. et may nuyu Ibrahima Diop mi nga xam ne moo débuté woon combat bi di ko ñaanal kooru jàmm ak njabootam ak bépp jullit di wax ne combat bi. Ama Gris. ama giri amaay favori parce que mooy xale mooy wut si mais nag mu boole ci am mantale de fer parce que giri il est dangereux de. démb la nee na giri xaalis lay bëri léegi. non sport business bu ñu ko jàppee ci xaalis. non ngir mën na signaler gauche jaar droite. jaar droite. Ah. mën na signaler gauche jaar droite. xam naa ah. leen xam naa ko. xam nga naa ko bu baax. mën na signaler gauche jaar droite. kon su entraîné Gilles jëlal sa matuwaay bu baax ci combat bi Gilles ah. Gris Bordeaux mën na signaler gauche jaar droite. non su su su wàññee yaramam boobu. ah uti doole. waaw non Ama Baldé. mënatul mënatul wàññi ma amatu ko. non xam nga même contre Balla en mars xam nga Dembélé Dembélé le plan la. yaram. waaw du sonal sportif. boobu njool bi Malick Niang xam nga nit soo koy entraîné ku hasard ko dal rek. soo soo koy entraîné. te te te ñeme woo ko. wala respecté wu la. doo mën a liggéey li nga bëgg liggéey. xanaa xamoo ne bari na ñuy jóge fii dem Europe. respect boobu ñu jox ñooñu ñu leen ñuy ñuy entraîneur yooyu buñ ñu ko joxee li ñu bëgg liggéey ñu liggéey ko fii te léeg ñu dem am ay difficulté bu ñu fii ñoo koy rek ay nit ne fii di perdre seen ah. temps ah. xam la yooyu sa àq la quoi sport sport ñett la entraînement mhm. lekk gi ak récupération bi lii mooy lii mooy sportif su ma lay entraîné man maa la dirigé dama lay xam ci lan laa lay yóbbu parce que nit ki mënoo doon entraîneur boo xam ne xamoo nit ki ñaari sitit la xamoo muscle li mu toll. xam calculer woo bi calculer woo graisse gi yooyu yëpp xamoo ko nga ñëw ne da nga koy entraîner tey boo calculer loolu yëpp ba teg ko bu ñu paree ci lekkam ak yooyu da koy xam. naan gi nag li nga koy naan fexeel ma di cinq bouteille cinq litres bi da jeex balaa ngaa tëdd bu ma lay entraîner man dama lay dolli cinq litres damay fexe ci entraînement bi ngay naan cinq litres yi mu jeex. bu ko defee ndox mi ndox moo lay dimbale loolu rek les sportifs soxla. ay bu la joxoon vingt millions yi. tey ci récupération. ah <laughs> ma ne Ama bu la joxoon vingt millions yi. Ama man bu ma joxoon vingt millions du ma ko entraîné man déggoo li ma la dama dul entraîné mbëru Pikine. ah yow doo entraîné mbëru parce que ñi ngi seeni entraîneur. mais kon fi kon fi mu toll nii tey bu jóg woon tey benn franc bu ñëwoon tey ne la père bi wóolu naa la si yëkkati benn somme jox la. waaw ngeen ngeen am plan Hmm. man dama dul dama dul entraîner ti kenn parce que xam nga li tax hmm. man li tax du ma mënul la mënatuma entraîner kenn hmm. parce que man fi sama dignité kenn du ma ko yàqal parce que man bokkuma ma ci ñooñ di martaatu mbër ak di am sa complexe man su ma lay entraîner man maa lay diriger di lundi au vendredi li ma bëgg ngay def xam nga on se prépare un combat de trois mois mais xam nga loolu moo amoon bu njëkk tey Thier ñu la trois mois Thier mii day bokk ci trois mois yi kati ah li ma ko wax looy def par force. Moustapha Gueye waaw. Mhm. mais boo gisee Fass am problème ak. kati bu njëkk problème ak kati bu njëkk ba mais dafa xool day sanctionné Moustapha Gueye. gars yi bañ. gars yi bañ. ok loolu mooy indi problème bi. kon nee sa sama problème moo mais xam nga euh, euh, c'est que mooy li ma wax rek man nit ñi ñoo bëgg lu gis dëgg. mais mu def kati ba war ko sanctionné man àndoon naa ci. lan la def waaw loolu la du ko mën a wax ci ay micro yooyu. du ko mën a wax dawaan ragal nag. non xam nga man dal na man mi lii mu wax nii dal na ma ci Ama Baldé mm. mu ñëw saal ma dàq ko mais mu mel ne dama jam Ama paak. nit ñi dàq nga Ama Baldé saal. waaw ñu ñëw ma ne ko doo entraîné parce que heure bi mu ñëw la. ba pare ñëw solul équipement. Mhm. toog ba kii rek gis ay nit rek bëgg am ji kii ak yooyu mën na ko arrêté wàcceel poids bi door ñuy kii ak yooyu am ñoo xam ne yow ne ah boo moytul yow yaay génn may leen ma génn. waaw mhm. xam nga mooy li ma lax xam ma mën nañ préparer combat ñu ne la combat bi des na 4 mois tey combat bu des 4 mois boo dee entraîneur dëgg dootoo jàpp 4 mois. Mhm. da nga naan man dese naa 2 mois et demi. parce que samedi dimanche bokkul ci entraînement yi. Hmm. am na heure yoo xam ne tey boo waree génn ak cher mooy la mara nee na ñu ñëw. waaw ko ciy yooyu yëpp tey nag ci li ngay lekk récupération bi loolu yëpp ma war koo toog di ko travailler ñëw bëgg ma hmm. gis nga nit sooy dem ci dara da nga dem ak say qualité pour gagner le combat doon soxna xam nga tey boo gisee ma wax la ay ñoom Mbaye Guèye ñoom Pape Diop ñoom Robert dañoo respecté woon Tony hmm. parce que même bu ñuy solee Tony xam nga Tony. même boo solee équipement da nga koy respecté da ngay xool fi ngay toog sa waxin da nga man su ma gisee ku sol équipement saaga dama lay jéppi mën naa laa ba ñu arrêté ak yow nuyoo mhm. léeg-léeg terrain Icotaf boobu may daw su ma mhm. gisee joueur bu saaga sol équipement do dama lay jéppi même bu ma jegee sa entraîneur dama koy naw kii dàq ko da ngay yiw rek <laughs> mais daal la parce que mi ngi ne un militaire xam nga tey moom li may wax def na armée hmm. gis nga leen ñoom bu ñu soloon militaire bu ñu mësaan sol wala wala les commandos xool nañu daan def dañ daan yor brosse seen sac hmm. pour respecter dàll bi te dàll bi dañ koy def seen mouchoir kodo hmm, mais nit ki da ngay respecter tenue nga am man loolu laa gëm ba pare nag bu ñuy entraîné heure dafa am heure wàcc am ah. mais yow da am complex su mi mu lay di wax ak moom yenn waxi wala mu lay yónni gis nga démbale li ma gënul mën a supporter mbër muy xuloo ci téléphone. man bu ma mënul man bu ma woo la jëloo ma. nga fekk ma woowaat la jëloo ma. Mm-hmm. démb dootuma la woo te du ma jël sa numéro. bés boo ma woowee. man li ma gën a bañ même boo ma doon tàggee sa xol. bu sama ya bu sama waajur bu nekkoon ci ci kaaf kaag bu garaaw. Mm-hmm. damay woo du la jël. wala ñuy xaar nga njëkk leen nuyu. mais loolu pour la fi nga ko teg yow suba moo xam day yor nii téléphone toog ne la jox ma sa numéro nga jox ko sa numéro mu mu ko teg sa numéro ñun fa lañ teg loolu mooy sama numéro nga envoyé loolu la ñuy def ah, ñoom ñëpp ba pare nga bëgg cee topp ñoom ñëpp ci benn saa man ful boo ànd ak ñoom ful la rek moo lay bu leen ñaan dara bul soxlaa ak ñoom dara man mbër yu bari pikin maa ngi seen la respecté nga respecté su ko mënul ku lay dem rek loolu rek la mm-hmm. respect donc ndax man mm-hmm. tey ku mel ne ku mel ne Eumeu Sène tey su ma amee lu ma soxla ci moom la njàng laa koy wax mais du ma ko woo téléphone parce que xam naa ne défaut télé défaut téléphone am moom mooy défaut. Mm. Eumeu seen mën na toog nii du xàmmee ndax moom moom téléphone bi wala sa téléphone. <laughs> man dama daan man xam nga chaque jour maa ngi atelier Landiang parce que chaque 17 heures damay entraîné foofu si mm, terrain. Mm. est-ce damay daan toog Landiang téléphone soo sonné mu jël aloo euh, euh, lu urgent lu ñu war a régler. Mm-hmm. ñu wax ko la Landiang day woo keneen ci kër gi kooku dem jox Eumeu Sène téléphone bi wala mu dem wax ko nangam mu doog a jug. waaye kii mu ne ma mbay kii problème téléphone la kenn mënu ko woo ba jot day mujj woo soxnaam soxna Eumeu seen lay woo wala moom la njang woo soxnaam wala mu woo ci booy yi kenn ñoom euh, màgget wala booy saa saa saa boggal ak yooyu hmm. mais te gis nga li gën a bon ci àdduna mooy suñu làmb ji suñu mbër ji li lay won ne baaxuñu hmm. duñu jël seeni kilifa téléphone léegi nag ñoom bu ñu demee nag ba nga xam ne booy yi am nañ combat ñu dajeeg booy yi booy yi mbalag leen. Mhm. jox leen benn weccet ñu am complexe ree kii booy bi nag non. gedd nit day gedd. mu entre boo gisee nag Pikine gën a taar ci booy yi. Mhm. looloo leen dal. au ñu xaar booy yi ñëw vers ñoom mais dañoo dem veer booy yi moo tax booy yi di leen paajal. te gis nga ku ci def faux pas ba am ay problème mu sëriñ wala genou. Mhm. yaa koy wéetoo bés te bu la yàlla natoo nag amoo amoo amoo doom yoo xam dañ naan leen fat leen paa balaa ngeen a dem. Hmm. yow di yow ti yow ti ci géej ci diggu kër gi nga koy jóge. toujours euh, si record Boucar ñu terminer ak Ibrahima Mbaye parce que démb la waa Assane Walu Gueye reprendre ko nee na Tafa Gueye Yékini Eumeu Sène sont les génies de l'arène yow d' nga Tafa Gueye Yékini Eumeu. d' accord naa d' accord nga. Hmm. yow bi ngay nekk Fass moo fa daaxoon bëre. Tafa Gueye Tapha Gueye dafa neex àndal wóop pop pop wóop pop pop nan la Tapha Gueye meloon bu ko man xamuma ko. da Mbaye Gueye ñëw wax ba pare man nag maam ñu ñaan mu ne ma Thierno li ma Mbaye ma ko def. wallaay. Mbaye Gueye li ma wax ma ko def sama xel laay demee. Uh-huh. ma ne ko lépp laa def na wóor rek. Uh-huh. mais li ko Mbaye Gueye mos naa gis mu euh, Tapha Gueye daan Aliou Diouf Mbaye Gueye du tëb mu tëb ko def ci làmb. parce que xalaat xalaatu na mën na lool. Uh-huh. non Tafa Gueye beneen beneen affaire la woon. beneen level la beneen level la woon. Tafa Gueye lu wóor tëdd man man man da ngeen naan ay ñi dañu mën bëri damay naan non non. ban combat moo la gën a marqué si carrière am. Moustapha Gueye euh, Mame Ndiambar. lu tax. parce que Mame Ndiambar dafa nekkoon mbër bu rëy bu diis. car mhm. macha allah. <laughs> ndeysaan mais bi Moustapha Gueye sumee ko Mame Ndiambar ma xool ñaari différence poids yi. Ah. ak mu am lu mu diw ñuul kukk. Mhm. ma ni kii est ce que Moustapha Gueye mën na ko daal Moustapha Gueye. ma gis Moussa ñu léewaatoo dem huit fois ci barrière dem. Ah. kati woo ko ne ko xoolal jeexalal combat bi doo tooñ ko doo ko doon tooñ ko mu ne ko non defal naa ko grand bàyyi ma rek du ma ko fàtte mu ne ko grand bàyyi ma mu mu jaa ba kii bi saako yi noonu ci barrière moom saa saako amul. waaw ak dafaa ngay tëgg ko ku xam ne poids am njamaan moo tax daanu. après enchaîné ko dóor ko benn bi mu koy laal sol ko nii. kii bi mu siggi. ci mhm. la koy mbot maam ñamal ko mën bëri la moom bi. Mhm. waaw ko jéggi boo leen xoolee image bi da ngay xool da koy gis. ko dóoraat ko beneen ko mu tafu ci wet gi bi mu koy ah. ngi xar taxa. Ah. ndeysaan mi ngi koy jéem a voilà exact mi ngi koy jéem a képp loxo bi. Mhm. tourné ak moom mais maam ñamal dafa daanu ba jaaxal man bi ah. Moustapha Gueye dawee dafa physique woon nag ko ñeme woon mm. Mm-hmm. daw na 100 mètres boo xamante ne bi ma koy topp man mënu ma tax euh, jot Moustapha Gueye. wallaay non dafa mën a bëre nag. Ah. man sax man bu ñu naan ay ñii mën a bëre kii mën na bëre man daal kenn du xubu sama bat Moustapha Gueye laa fekk. Moustapha Gueye mais le 1997 xale bi jóge Ndangaan ah l' enfant ñëw rek jaaxal leen. waaw 1997 boobu tam boobu tam Moustapha Gueye. drapeau solidarité et ci doole da ko raw ci doole benn ñaareel bi. Uh-huh. mal préparé comme li may wax rek. kon Tyson. kon Tyson ñaari ñaari ñett ci biir géew bi. Moustapha Gueye échauffé wu. waaw. yooyu yëpp. échauffé échauffement bi baaxul. waaw yàkkamti maanaam Abdou Diouf day ñibbeeg. Mm. soo ko temps solidarité partage ñoo ko. waaw waaw ok mbay ngay ñëw harcelé ko léegi kaawul kaawul la def kaawul la ngeen def kaawul la ngeen def. Mm-hmm. ok ngi xuloo ak Faga sax ak Moussa ñu ngi ñu ngi xuloo naan ko daf ñu naan ko bu bëggee na ñibbi. Mm-hmm. Mm-hmm. bii bii ñibbi si après Moustapha Gueye ma yow da nga def kaane ma ne leen ko wax Moustapha Gueye ne ko waaye bul ma laaj loolu échauffé wu ma def ma dara pare ngeen jàpp ma bëri loo ma nii comme ça. Mhm. effectivement noonu la demee. noonu la demee après bu bàyyee ak mauvaise note bàyyi ah. contre Lac de Guiers ak Balla Gaye defet sa mbër. ah kooku moom combat yooyu ni ma ko ci mere sax. da nga ko si mere. trop na combat yooyu moom. du tax nga mere xaaral. daf ko combine. lu ah. kenn sañul wax laa ko wax. daf ko combine Moustapha Gueye daa combine contre Balla Gaye. Balla Gaye ñëpp ñëpp ko combine Moustapha Gueye mosoo dóor nit ba tourné jox la gannaaw. xool leen li ma leen wax rek. Moustapha Gueye daa commune kon Balla Gaye moom euh, euh, dëpp na la de Guiers. waaw ah. dafa ne daan na ko euh, bàyyi daal di bàyyi loxo si waa ji dafa gul mu dëpp. Hmm. xool leen li ma leen wax rek. kon Balla Gaye tamit commune la. jëpp la ko commune. yóbbu après bu ñu tasee ñu xeex. <laughs> da nga xëroon ci moom rek. wala non man man man maa man dama xëroon ci Fass. waaw man dama xëroon ci Fass. man ku mhm. maa ci gënoon nekk xale man dama nekkoon xale boo xamante ni seen biir. amuñ secret lu ñuy def man la ñuy waxal ku ciy wax man ngay waxal. seen yan defet moo leen gën a métti Fass. bi ma bàlle bee un te mu mun ko fuuf. c'est le grand champion. Hmm? le grand champion Balla nga ne moo ko mën fuuf. non papa Moustapha Gueye xam ne moo mën Balla ma ne ko mënuloo ko. Mhm. mënuloo ko de mënuloo ko. mais ñemewu ko woon de. tafaay ñeme na ko kay non wax la rek ñeme woon na ko kay ñeme woon na ko. waaw ah, loolu loolu ci gis deuxième combat bi ñu taxawaat ak fi tam mbay ngay moo fi man tabal ma loolu takk takk fi tam géew bi yow kese yaa fay dugg. <laughs> mais Fass mosul am roi titre roi des arènes Gris Bordeaux mën na ko nekk. ah bu amee du lu may bett lay doon. bu amee lu la bett lay doon. Ah. <laughs> waaw <laughs> ah. tax dama xam rek. amatuñ foofu amatu sa sa kii baa ngi ñëw âge baa ngi ñëw lépp ngi ñëw. xam nga taxaage la moo tax mënul woon nekk roi des arènes. est ce que boobu temps roi des arènes am na. ah si mais roi des arènes ba léegi sax nee nañ ah, ah, amul parce que gars yi nee nañ CNG moo a jox te CNG jox depuis ci manga ba léegi. Hmm. ku daan roi daal roi la. waaw ah, te man ku daan roi roi la. na Yékini bëri na Yékini. ah combat ba Yékini bi. roi bi la woon boobu. doon roi boobu non non non. Euh, fàtte naa mais kon musul bëre ak roi. non musul bëre ak roi waaw. Ah. Gris Bordeaux moo fa tenté contre Yekini en 2009. waaw 2009 ah, waaw. waaw sinon Fass musul. la hmm, euh, xam nga. parce que Baboy da leen daan après ngeen jël Yekini. xam xam nga xam nga boo xoolee Tapha Gueye. cinq cinq combats yoo xam ne. victoire bu ci nekk la lay yéem. Hmm. combat am ak Alioune Diouf moog Serigne Ndiaye. moog Lac de Guiers. non yooyu sax moo mujj Lac de Guiers moo mujj. xam nga non prise laa la prise yi mu ne c'est risqué. moog Lac de Guiers 1. Lac de Guiers 1. waaw. Lac de Guiers 1 laa wax de moog Serigne prise bi mu def. Mm-hmm. prise yu risqué yi mu jël. moog Babou yi. Mm-hmm. prise yooyu mu jël nga xam ne. ak maam Ndiambane. maam Ndiambane bi sax maam Ndiambane bi sax taxul neex mais gis nga Alioune Diouf wàcc gi mu wàcc ak ni mu ko tiiree ci kawam. tiiree ko. nga xam ne bu defoon faux pas rek boobu Gaston bi day ñàkk. nga xool mook mook Serigne Ndiaye dafa ne un deux bi muy doon yéen bi mu ngi téere Serigne Ndiaye. waaw ah, fii fekkoon téere rëcc wala dara. Mm-hmm. day jaaxal. Mm-hmm. gars yi émission bi neex na <laughs> technicien bi ne on a fait deux de temps. ah kon c'est bon c'est ñu daw gaaw dog balaa ñoo gën a tardé. ah bëggoon nañu a yaatal mais ak ah, ah, doyen euh, nga tàggatoo Mbaye. Euh, may nuyu ñëpp. di jéggul tamit bu wax ji dëngee ñu xam ne dañ doon waxtaan bëgg mu rafet. di lancer appel euh, autorités yi nekk Pikine yëpp. waaw ñu bàyyi récupération politique bi jàpp ñu suñu kilifa. ndax tey bu ñu demee bay wax làmb ci Pikine Pape Diop Basson moo tax te nag yàlla na yàlla guddal fanam. mais bëgguñu toog ba bés ba ngeen ñuy jox ay ay ay ay ay nag ay nagu dëjëg ay ay luye leen fii seize bëgguñu ci loolu dimbali leen ñu ngeen jàppale ko mu organiser wu faju Basson bégal na Pikine fu ne. organiser bu fekkoon ne neneen la mel. Mm-hmm. ba pare booleek ñi nga xam ne seeni njaboot a ngi bëri ba mu dugal fa làmb. ba seen njaboot di faj seeni soxla nañu gestu xam ne bas bu dul woon basoon loolu duñ ko mën a am. Mm-hmm. nañ leen dimbale ancien couloir yi. Mm-hmm. mais xaar di leen kii ak yooyu ak autorité yi fa ne bàyyi yi ñuy def bu mbër di bëre nga dew defar ay t may ko ay millions bàyyi ka nga xam ne mag ma fa newoon téye affaire ba xale bi gën ko ba xale bi gis ko bëgg ko may nuyu suma goro Ibrahima Diop di ko ñaanal di nuyu suma xarit Lanjang di ko ñaanal moom di nuyu sama famille yëpp